xalé biñu commencé bi Barça wala depuis avant Ablaye Wade di ñew ñi ngi jël gal te ñi dé ci suñu doon ëpp nañu ay hmm. muy choix demb biñu communiqué gis politiciens amul programme di def Mimi Touré état dafa édifier ci 300 personnes premier ministre ministre de la justice fi conseil économique et social bu Macky Sall campagne direction directeur campagne Macky Sall ci élection yi ñu génn muy 2022 mille nit ñi ñi ngi dé mom édifié wul Sénégalais yi mu nest ba tey nees dañu wara édifier Sénégalais bi ci top Ousmane Sonko defaat communiquer né Macky Sall moy responsable ndaxte su jëlone investir ci mbay bi investir ci élevage bi xalé yi du dé donc ban jangat gam ci communiquer bi nga xamanteni ñom niom ñu ngi ciy wax. Mimi Touré. Ba temps xam nga ne Mimi Touré. tok na man. am ay seede mu ne ma maa tëj waa PDS seen baay Karim Wade barki salaatul fatiha ma dellu man dégg Mimi mu ne senegale yi dañuy jaawale Sidiki Kaba moo tëj Karim Wade Mimi Touré kii kii Mimi ki nga war <laughs> Mimi ki la dimbali nga war yow Sénégal yow danga nga amul base yow sénégalais yi soppuñu la daan lay nax lekk sa xaalis dërëm dun la ko defal nag man maay wax ak yow dóoroo fayiwoo mayewoo nii nga fi nekkee dëngal gémmiñ ak mooy yow kenn du yow man nga wor nee nga danga nga may rekk yu jigéen bala ko tunkara di sabañ yow Mimi ture man nga yaakaaroon maa la doon génnal maa la doon défendre Mimi Touré yow Sénégal kii nga déposé fi candidat man may dund yow yow fu ma yendu doo fa baax parce que workat nga da ngay jàmfaa doo dara yow keneen nga nga may wax ku war a bëgg a nekk président ci réew mii yàpp ñu. waaw mais mu Touré tey amul lu mu yàqul Ousmane Sonko nee na ko une deux trois ci élection législative yi. un deux trois xalé yi génn leen ñu taal fii ñu taal fii magum jëmm bu def say tooxi doona dem ci salon. waaw mais Mimi Touré boobu tey moo ñëw nekk ci gus gannaaw Ousmane Sonko nee na Ousmane Sonko dañ ko tooñ dañ ko politiser. est-ce que tey waxi Mimi Touré Sénégalais war nañ ci bàyyi xel est-ce que Mimi Touré tey war na génnati di wax ci waxu politique ci Sénégal pour ñu dégg ko. Mimi Touré nee naa la wala léegi gabaal ma wala hmm? léegi fen lay nit ñi di ndamoo jël dëgg di ko toroxal loolu laa bëgg xam. parce que ay magum jëmm yu toog di wax. mais moom xam na ni day kàcc. Mimi Touré li muy wax sénégalais yi sénégalais yi gëmunu Mimi Touré Mimi ci ba député yi élection député yi ba mu jeexee mais Mimi Touré pose na fi deux deux jours dem dem ca doomam Los Angeles muy gradué ca ca université américain yu baax ya li muy wax ci xale yii di dem ci géej gi fii la ko fekk loxoom génn ci kon

lu tax mimiture Mimi Touré amuloon power arrêté xalé yi xam lu ma wax fii ku fi dem ci geej gi dé moment bobu man Mimi Touré dañ doon wax ku fi dem ci geej gi di réwontu ba dé sa affaire la tay nga taxaw wor président Macky Sall wor ma man kura bëggul Sonko dañuy naxanté Sonko beugul Mimi Touré xam nga lu ñuy naxanté Mimi Touré xam na ni Sonko day dem nu musine mu bëgg janoog Sonko def ko ni pour xale Sonko yi daw ci mom Sonko bëgg na am ay information ci Mimi Touré nii la ñuy naxante yëfu politique la dañuy naxante léegi nak yéen ñi ngeen xamni ni politiku leen peuple bi ñu len di roubé di len nax ma len di netali li ñuy def dé barke alcorane karim katch rek la Mimi Touré di def. dimbali moom dimbaliwul kenn ci élection municipale yi. toog nag benn leaderu Yewwi Askan Wi du ma tudd turam. Mhm. dafa am fi ñu dajee mhm. moom ci boppam moo ma ne Tange noppalal sa bopp ci Ousmane Sonko nga foog ni ñi lu ñu def ci politique xam ko rampe dinañu bàyyi Ousmane Sonko jiite ñu. waaye présidentielle lay xam ne lépp dëgg la gamee la ci politique. wallaay wallaay bi ma ko waxee ñu xëy la lendemain ma gis Yewwi Askan bi def point de presse. Hmm. waa ji toog Ousmane Sonko toog muy saaga Macky Sall. te bi présidentielle yi je crois que firndeel nañ ko ndaxte waa jooju lijjanti na boppam ba man ca dialogue ba ba xëy na moom dina doon candidat su ko vi député yi voté corps Sonko bañ doon wax yaakaar naa ne mi ngi ci guddi bu bët setagul donc moo tax damay confirmer li ngay wax ci mmh. politiciens municipal yi dama ko wax 2022 bi ma ko waxee am ku ma ko nettali sànq la fi jaar mu ne ma yow doo ni da nga xam politique li nga waxoon de moo confirmé donc c'est juste pour confirmer li nga wax Mimi Touré ku nekk dégg nga li mu wax Ousmane Sonko ci élection député mhm. ñun yoruñu calendrier Sweet Beauté mhm. mu ko bye bye Adja Mimi mhm. mu naan ko bye bye Ousmane mais mënuñu and ñom ñaar Mimi Touré dafa yëkëti ay lafam Ousmane mm -hmm. te Ousmane Mimi Touré da koy mëpp laafam. d'accord